may ma benn kàddu rek. Euh, boole naa la ak Balla mi. waaw léegi Baye ñu ngi mën a wax. maanaam damaa bëriwut lu may kii noonu man li may wax toujours mooy jàpp benn fonk yëpp jëfe ndigal bàyyi tere nan defar jikko yi nga bu suñ jukki yi hmm. buñ ko defee luñ ñaan yàlla may nañu koo may macha allah macha allah Cheikh Mountakha yaa ngi fii ci màggalu sëñ Baali Jenn gi fii si kër Baye Niis maanaam xam ku la gis li muy def mooy ñaanal nga Enggak fi loolu te wér ngay def ci liggéey sëriñ bi nañ ci nga allah. Ah, rek <laughs> te ñaan nag uh, mbarke bis bi ak mbooti bis bi ak jëmm yooyu ñuy tudd tas na ci barkeem te yokki leeram uh, sëñ ministre bi nga xam itam moom ma doon fekk si fii li ko waxoon léegi rek moom dama ko ñee daal waaw li ko ñee rek mooy moom koo gis xam ne murid daal ndax loolu laa koy xam loolu amu ko dëgg amu ko waaw <laughs> loolu daal laa ko ñëwee. macha allah ah ñaan rek rek. yàlla na yàlla dogal ci ñun. am nañu dëgg dëgg taalibe Serigne Touba. ñu gën di gis Serigne Touba. jekki Serigne Touba jekki gi Serigne ñaan yàlla bu son dara gën a Serigne bi. yàlla bu son dara gën a bi. loolu jar na ko gëstu sax waaye moom nag li ñu bëgg yal na ko am. amiin moom li ñu bëgg ci moom. loolu jar jar na ko jar na ko gëstu waaye nag li moom nag am na lu mu moom sëriñ bi yal na am loola. amiin te looloo jafe. amiin waaye koy waxee rek ci gars yi. Mm. ngeen jërëjëf sëriñ Tuubaa koy wax. ndax war nañu. ndax defal nañu. nunu ko sante waaye nag fi liggéey bi nekk dëgg-dëgg mooy ndax ndax ndax ndax moom dafa nunu ko lu mënu sante moom waaw foofu bi ne waaw jërëjëf sëñ Tuubaa loolu yomb na waaye nag moom de xam naa ni daal bunu ko kenn ku ne ci ñun bu ko waxoon jërëjëf milliards yoon moo moo wax la ko moom benn yéen moo gën <laughs> ña ma ko waxoon ci muy huit cent nangam bi ak duñu tukki hmm. loolu wéy bi sëñ ba kon jërëjëf suñu tubaab baax waaye moom mi ko fexe ba mu wax la ko mm. benn yoon mm. ah da nga xam ne bokk la nga foog kon nag liggéey la nekk mm. ah, waaw loolu nag jëkk ndigal yi daal waaw <laughs> xanaa daa mel ni yëpp ci la bokk rek jërëjëf sëñ Tuubaa màggal yi ñuy defal sëñ Baara Jën nag ay sëñ Isaa Jën nag maam maam sëñ bi maam gestu gi mu leen gestu rek moo waral ci ñoom ñëpp daanaka gestu leen moom it ñooñu nag ñooñu ñoo ngi mu ñooñu ñoom dañu leen defar defaru yombut hmm. moom mi doon defare hmm. ak ñi doon defar hmm. xëy na jeexte yaa ngi fi tey waaye nag la ci dem na moom mi doon defar ku mel ni moom amatul ñoom defaral bopp itam ñu ngi néew léegi lool waaye nag tawfiix ji nag ak ndimbal li ndax ba tey moom moom moom moom moom lu baax du fi jóg tey ku dogg ci ba tey ku dogg lu baax am lu yombul nag waaye nag ba tey ko doog rek am ndax lu baax moom mosul yombal sax waaye dafa gën jafee ci nekk ndax hmm. nga egg ci jamono joo xam ne moom foo jaar gis bakkaar hmm. foo jaar dégg bakkaar hmm. loolu loolu def rek daal di jafe waaw moo fi am waaye nag ci ndimbal sëriñ bi ak ak ak tawfiq sëriñ bi ak yërmande sëriñ bi loolu gasum gasumul boppam rek téyel boppam rek ndax suñu téyee ko amul njëriñ fekk ko fekk ko sax rëcc waaye moom moom bu téyee moom mën na ko rëcc moom kon yàlla na suñu téyel boppam te te ndigal yi rek mooy mbir mi sëñ sëñ Abdoulaye Diané da nga dégg turam ca mag ña la moom la sëriñ Tuubaa waxoon ne ko lu dul alquran liggéey la wuma la ko ci sa loxo yi lu dul alquran liggéey la wuma la ko te suñu nee gànnaar nag Ah, mu di fexe am fa asu daara di jàngale léegi nag murid yi ko yow fii jàng amu fi liggéey fi am liggéey fi am di ko wax nag ba mu jaaxle nee ma fexe ne buy yëglu ba ci sëriñ bi su ma ah kooku Abdoulaye ma ko waaw muy ma lu mu doon en tout cas ma ne bi dinaa jàng amu fi liggéey fi am ah, may nag naa ñëw leeral la ko rek nee mu ne ma Abdoulaye fii liggéey amu fi jàng amu fi ndigal fi am liggéey amu fi jàng amu fi ndigal fi am moo tax nag ci la mën a déggal kon ndigal dégg ndigal loolu nag yàlla ci yàlla yàlla dugg ci boppam moom wax daal mën naa bëri mën naa nii waaye lii daal mooy mooy mooy lii daal mu gokk waaw moom daal moom daal mu gokk rek ko daal nga di murid daal waaw ndax murid yi bokkuñu waaw seen bay jax dina ko yàlla njëkk yi murid rañ ne gondar ngir en naati goo yo taaj en mbaɓe ke fasi par murid bokkuñu di mm-hmm. dégg naati goo rek fasa par ak mbaam bokkul mm-hmm. te léegi ci murid gi moo tax ngën ci murid nag moo jaar di ñaan dana doon ngën ci murid amiin amiin amiin lool lool lool waaw loolu la ngën ci murid rek waaw waaw sëñ moom macha allah moom moom moom moom moom moom moom moom moom moom moom moom ok jërëjëf jërëjëf waaw moom daal ngeen ñu murid daal jeex na. amiin amiin yàlla yàlla defal daal. amiin amiin waaw waaw ndax moom loo ci wax itam moo tudd wax lu ëpp loolu waaye daal ndax ndax wax naa ba tàyyi ni leen خالد جهود كركو باع جهود فتو باع جحود دولة ساسة حسا عمليكو نافقي عمليكو ينفيري عمليكو جهود يعني لكم يتوقع جحود كيدا نجي وأطب ربع وإذا فاد يجي ربع أطب كل زوج كاكا يدخل لي على البلد نعم. ولا صيف اللي يدخل ولي كردون ولي خايس دون لا يلا يلا بقرب أبساي ساي غير ما يلا لك جالس أبا لا بزر يفوج يتفرق ما يمر ميوني واحد لما جاء هذا يمر الدق يمر يمر الدق يمر لا يوم بينك واحد من أمر الله تدل أمري kala xamoo nit nit daa gis ku dem ba amee murid te moom moom nekkul murid moom ku <laughs> dem ba ami murit laa wax ami murit te moom moom ami murit moom moom du murit moom murit yombut xanaa hmm. dégg waxtaan moom kay yaakaar naa am nga ko sax sama waxtaan ba si mun taxaa hmm. amoo ko am nga ko de waxaat ñu ko rek waaw déedéet benn la rek ba te booba lii rek lu mel nii moo koy indi woon hmm. waaw moo ma koy wax ni ko euh, ndax murit murit ordinaire am na muy ma loolu jiwlu ma ne ko bu fekkee am na rek man na murit baatu murit dugg rek waaw su ma yow déedéet dañ bëgg doon saalox rek waaw yombul nag fekk am ku ma tooñ ci kër ko tooñ ko métti nag am na ko ne wax ko sëñ bi mu taxaa bu guddi mu woo ma ni ma eh, diw dinaa tooñ ma ko waaw mu ne ba naqareew la ma ne ko ah, wax na ma koy mu ne ma kon sa murit des na lu bëri bëri bëri mu ngi mer dawagul fenn loolu yomb na yambut de yambut ne ma xanaa xamoo dox di dem dox di dem ba am ku la a gannaaw ba nga boo geesoo ngir xam ku la dóor xam ku la dóor rek fayu nga loolu baax yomb na hmm, yombut de moo tax la bu hmm, hmm. kooku trafiqi sëriñ war nañ ci eggale ndax seen rafet dañu ko laaj ne ko ak xut bu lu ci gën mun leen mboot boote xut bu suman mu fer ci bët bu di sayam benn bëccëg moo tax ma xam. dégg nga wax bi. xanaa xamuñu xanaa na mu fer. Hmm. ñaari at wala ñaari at yu bëri waaye bu ñuy mboot bi ñuy mboot xub bi sumaan nag bu mu fer hmm. ku ci boot mu di sayam benn bëccëg moo tax ma xam. kon li ah, fi daal ngoog. Ah, loolu day na. ah man macha allah. lan doon murid rek. waaw alhamdulilah amiin amiin jërëjëf yàlla doon murid rek. amiin jërëjëf jërëjëf